Euh, ci nag fan yi di ñëw ci nag audition bu Ousmane Sonko euh, ci affaire bi nga xam ne da koy opposé ak Adji euh, ci nag war a prévenir éventuel trouble maanaam ñu ngi waajal nag ne njort nañ dina am ay nak rëq-rëq yu mu daal di am ci askan wi ndax trouble à l'ordre public nar na ci am force de défense et de sécurité nekk naka ci alerte maximale ginnaaw plusieurs mois yoo xam ne ñu leen ginnaaw ay raisons yu bëri justice sénégalaise décide réactiver dossier judiciaire bi le euh, bu ñu sukkandikoo ci waa Sénégal seet nee ñu nag euh, ay date lañu ñu pour rendez-vous bi le euh, loolee nag pour le moment kenn nangu ko publier nee ñu sax ña ko am ci source ya dañu ne naka bu ñu ko publier ndax mën na tax nag ñi nga xam ñoom ñooy gars yi Ousmane Sonko yi daal di teg ay stratégie ñoom tamit ngir daal di riposter Euh, dans euh, tous les cas euh, ci nag répétition événement yu mars 2020 yi nga xam dafa occasionné woon ay pertes en vies humaines quatorze morts net la amoon ci ay nombreux maanaam lu bëri ci ay dégâts matériels un peu partout ci territoire national bi les forces de défense et de sécurité yi notamment police ak gendarmerie nekk ci alerte maximale bu ñu sukkandikoo ci nag xibaar yi ñu nga nekk di organiser wu ngir daal di nag jéem a janoog lépp luy éventualité ay troubles ngir éviter nag lépp di trouble public nee nañu nag yoo xam ne mën na daal di nag indi njeexital euh, ci rendez-vous judiciaire bi nga xam ne ñëpp a ngi koy xaar direction général police nationale ak au commandement bu gendarmerie nationale daal di tenir ay réunion yu bëri ci wàllum sécurité euh, ku ci nekk si wetam bu ñu sukkandikoo ci suñuy source itam ne ñu arme bi itam dinañ ko daal di nag activer en cas de besoin euh, d'ailleurs benn plan d'opération la ñu nar a présenter Euh, euh, plus haute autorité bu réew mi di euh, nag daanaka président de la république Macky Sall ngir naka la ñu nar daal di doxalee lu ni mel ndax soo moytu na yeneen yi demee noonu la lii tamit nar a demee mooy dinañu daal di nag wax. ne ñoom ñi nekkee farek Ousmane Sonko daal di nag wax xale yi ñu génn ci tali bi te su boobaa jàmmaarloo yi nag mois de mars rek ba ñu ko defee daanaka amoon lu toll ci quatorze morts ci réew mi yëpp yoo xam ne jot nañ ko daal di nag euh, euh, compter te loolee la ñuy bañaat ñoom moo tax ñu bëgg a teg ay stratégie euh, ba noppi ñoom bu ñu tegee stratégie de pointage ak de sécurisation dëkk bi yëpp muy Sénégal yëpp ba noppi nag ñu door daal di naka procédé ci publication datu rendez-vous bi nga xam ne Ousmane Sonko wax na dem daal di nag wuy ji ñu déglu leen nag ñu déglu ko moom sax ci fond dossier bi ndax nag aji saa déglu nañ ko déglooti ko waaye Ousmane Sonko daal la ñu mënut a déglu ci nag bile dossier.